lay ziar. maa ngi lay fay. Oh, ah, noo waajalee sa doom muy bëri. di ko ñaanal rek ci kàttanu yàlla yont bi di ko ñaanal rek mu dem ak jàmm ñëw ak jàmm indil ñu ndam fii. bis bi ah, rek teg lépp ci loxo yàlla rek. loo ah, xol bu sedd rek ndax xam naa ndam li day ñëw. ndam li day ñëw man xam naa loolu man maa ko jur. adversaire bi am yaay ñaanal naa ko. ñaanal naa ko. dëgg la ñaanu ndey du nii daal te ñaanal la ko. man daal maa ngi ñaanal sama doom daal yàlla may ko ndam.